daleen ak jàmm mbokku internet yu seen njariñ TV daal di wax nag ci ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye fay ak Libération moom Macky Sall nag daal di la ci jël kàddu chef de l'État ginnaaw ba muy daloo candidat recalé ci présidence de la République moom ne nag dafa rek daal de wax jëm ci liberté bi nga xam ne moom mooy Diomaye Faye ñu tëj ko juróom-ñeenti mu nekk détention préventive Basirou Diomaye Jahar Faye déclaré ko officiellement candidat ci élection présidentielle ci par conseil constitutionnel bi ñu tëjoon ko nag lu mat secrétaire général bu parti PASTEF mu ngi am nag ay jafe-jafe boo xam ne moom moo tax ndaw ñi wala sax nit ñi di posé bu question euh, jëm nag ci euh, mën-mënam ngir mu mëne ab campagne électorale bu am solo ci noonee nag ka Bassirou Diomaye Faye ñu évoqué ko nag ca palais de la république ginnaaw audience boobule ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fa demoon li ñu bëgg daal um, moom mooy ñu daal di uh, bàyyi ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye fay kon nag rëkkale yooyu fa ñu demoon am na retombé jëm nag ci uh, patriote yi rawatina ci parti uh, PASTEF collectif des rëkkale ñoom nee nañu dañoo laaj ci président de la république Macky Sall mu bàyyi Bassirou Diomaye fay la mu leen tontu rek nee na na laajte liberté provisoire ñooñee nag di nit ña teewoon ca boobu lépp ndaje ñu ne chef de l'État dafa wax rek requérant yu conseil bu intéressé bi maanaam avocat yile ak ses conseillers ñu introduire benn demande de liberté provisoire nee na ci noonee nag Macky Sall moom nee na ubbeeku na ngir bépp euh, li di solution ci fàttali avocat yi Bassirou Diomaye Faye ak kii leen jiitee di Maître Ciré Clédor Ly déposé woon nañ benn requête ngir euh, daal di am liberté provisoire boobu lépp demande nag ñu fondé woon ko ci rupture d'égalité entre candidats conseil yu candidat boobu nag nga xam ne leader bu Pastef moo ko tànn di Ousmane Sonko nekk ca fa nga xam ne moom mooy eh, kaso googule te it candidature am daal di woon nañ koy invalider maam kii di Ousmane Sonko wante ka mu tànn nag moom moom it mu nga biir kaso wante candidature moom validé nañ ko te nag ngir mu am rek liberté kii di Macky Sall nag nee na day wan yoon bi waa Pastef